wa المصطفى وبه

بل به مده بخالك يا من لي يجود به بالبزر والأمان مني تقبل به مده بخالك يا من لي يجود به تقبل به مدين بخالك يا من لي يجود به بالبسر والأمان أجابني رب السماء والأرض بالذي سما فمنه خالق بالذي سما ومنه خير هدى ورد لي من اهتدى

وكان لي وكرما عذاب ما لم يرتلي بخدمات المفادل وكان لي بالأفضل الحكيم يسر لي نعم الحكيم علمني وفهم على نالي رب القلوب لجدفت من بحالي قاد له بالخلق

بالستبالا هل أنكبوت يقيلهم رواية بيت هلال الجيمان سلاما ملاكاني نور اللسان باخ ياخذ

حسناني هني وهن ولحياتي عسما بركات الماء الولي نور ربي الأول نفسي يقوى ومن أباه فسما يقول لي سرسيا مخجلا سهل وخيا وفوق jaa وحدهم يكرما لن يرى

sama lahum بك موسى سالم خدر وبسعيب وإسماعيل الله وبسليمان نوح يونس اليسعي وزكريا يحيى هارون يوسف الياس وآدم دار وكلاوس الكفل وصال تجلى ويوسف وبإسحاق وخيرهم من أنبياء الورود لك يلا وبالملائكة ترى ثم صفوتهم جبريل ثم بميكائيل سائب النفي إسرافيل قابل أرفاع الخلائق عزرائيل وبالصحابة ثم الأولياء معا والهاملين من الأخبار وبالصديق وبالفاروق ثم بزيد نورين ثم أبي السبتين يا الله بمالك سلمسا يا سفيه أبي حنيفة الأرض ذكر صلاتي وتسليمي عليه له والآل وصحبه والأزواج الله وأسبلنا علينا ربي عافية وهب لنا قصد في الدارين يا الله وافتح لنا كل باب كنت فاتحه لسالكين من الخيرات يا الله واذر بنا نجر وفنا ورل لنا بالنوى الشيطان يا الله وكمل القلوب ونقصده وهب لنا لما نختار الله فجمعنا كل ذي صعب وذي هرن ويسرا كل ذي تاسير الله تمن لنا عمرنا سير لنا بدنا وهب لنا الرشد والتوفيق يا الله ودمرا كل داء تدر بنا قبل الوصول لنا يا الله يا الله وكل لنا هازما لكل ملكة ونار

حر وبرد ونهب كربة نعم دلالة حرج والخم يلاو وهامة وخطايا دالة سلل والمعص والقصف ثم القصف يلاو وقلة مجنون هلة مرد ثم تسامحي نقصان الله ومن خبيئة الدنيا ثم آخرة ومن فدوئهما يالله يالله يا من على كل شيء قادر وعلى الله عرش العظيم استوى بالقهر الله إني سألتك قلبا خاشعا متواضعا وعلما كثيرا نقي الله إني سألتك قلبا خاشعا متواضعا وعلما كثيرا نقي الله إني سألتك قلبا خاشعا متواضعا بيان وعلما كثيرا نبقي الله لي في قلبي بلا وجل حتى أحب لهاك الحق يا الله وليجعل الموت راحات ومفرحة من كل شر وكرب داء يا الله وقل لي الجسم حيث الروح فارقني في القبر الله

ونجي والدتي آمين يا الله واغفر لنا ولها واستر مائبنا وتؤمنا وبها في الأولياء الله هل تجاوز وإيانا barru yàlla من ماء الكوثر من اخترته من جميع الخلق يا الله من كان يرسل ساحي ويهلك سا كفر وينصر من يخشى محمد مسكن الأحياء خالدنا من جنة الخلد يوم العصر يا الله عليه صل وسلم دائما أبدا ومن غفور يوم الدين يا الله عليه صل وسلم دائما أبدا ومن خفوه ليوم الدين يا الله عليه صل وسلم دائما أبدا فمن خبوه ليوم الدين jërë ngeen jëf kuréel Touba Canarias ci njàng mu am solo mi macha allah passeefu na lool te neex na tegu na ci yoon it yàlla na suñ borom barkeel leen ci barkeb xasida xam naa kon kuréel menorka jàng it ajaabani rabbu sama jàng ko sëriñ Mayib Guèye mooy muy daaj bu am solo lool jàng it sindiidi sëriñ Baye Dame loo mu mel ni kenn ci ñooñ rek xam naa waxtu bi duñ ko may waaye koo ci jël rek day doy sëkk royukaay ci xasida yi kon xam naa dañuy jël sëñ siise rek ba ba kuréel gi di noppi ndax ci lañ tàmbulee sëriñ alxaaji Cissé bokkoon ci mag ñi nga xam ne daanañ jàngal Cheikh Mouhamadul Bachir daana jàngal it sëriñ Saliou Mbacke mu nekkoon jëmm joo xam ne ju jàmbaare la woon turam wi gën a siiw nag mooy sëriñ Abdou turam wi turam wiñ ko baaxoo mooy sëriñ Abdou Khadir Cissé waaye ñu bari sëriñ alxaaji Cissé rek lañ xam mu ganee jamono fële ca njaareem ci atum 1919 nekk ci keppaaru Serigne Basiiru fa la jànge alxuraan fa lañ ko tërbiyaa fa lañ ko defale lépp muy koo xam ne am njàngam njàng mu yéeme la lool nga xam ne wax nañ ni doon na roy jëmm ju ñuy wax Serigne Massamba Niass waaye lenn ci mag ñi nee nañ moo ak ma Massamba Niass yëpp heure bi nga xam ne moom la ñuy jàng ñi ngi ko jëlee ci Cheikh Ibra Fall Bouba mi nga xam ne moo jiite woon kuréel ga ga daan jàngal ku tedd ki muy cheikhul xadim radiallahu taala anhu kon muy njàng moo xam ne mu am cosaan la bu ko defee kon dana doy sëkk rek ci suñ leeralee dara ci suñ alxaaji siise waaye ñu ñëw it ci xasida gi tëje muy xasida si sin nga xam ni nekk na xasida goo xam ne xasida gu yéeme la sëriñ bi taalif ko muy xasida goo xam ni xasida gu yéeme la sëriñ bi taalif ko di ci sant boroom subhaanahu wa di ci ñaanal it way juróom ndax bi mu koy taalif fekk na way juróom wu jigéen bàyyi koo fi li gën a waral taalif gi nag da daan gi soxna asawaalo di jàng téere bu ñuy wax sayfiya sëriñ bi ne ko dinaa la bindal lu ko gën fuuf ci la taalif ak xasida sindiit gi nga xam ne bi mu demee ba ca mujj ga mi ngi ciy ñaanal way juróom ci lay waxe wa najji nii wa jami al muslimina ma an wa najji walidati amina yallaahu waltuf bina wa biha nga xam ni fil hawli nga xam ne sëñ bi ci xasida googu da ciy ñaanal way juróom bu jigéen ci lay waxe anha tajaawas wa iya narxaman na narxaman na fama lana siwaaka wa antal barru yallaahu mu ne xasida goo xam ne it sëriñ bi indi na ci secret fàllaxi ak naasi nga xam ne booy xool ci baytu wa kun muisan lana min charri si xasadin ma charri famin wa charri ayni yallaahu wa charri sixrin wa charri xalqi insihimu ma jinnihim wa sawaati summi yallaahu kon xam naa liñ ci bëgg a day xat bu ko defee kuréel Touba Minane ko bisimilah kon يسرا لنا قد يكن a adoo عند المقدم للرسائل بالمساعدة te ya سرورا بذل جلال

sa

بجاه المصطفى وصليا عليه بالتسليم والسكليا هجر بجاه المصطفى وصليا عليه بالتسليم والسكليا هجر بجاه لا تقل لساني مع لساني لمن كسر